Mm-hmm. voilà mais encore une fois dañu ni il faut ñuy liiraat texte yi. Mm-hmm. il faut ñuy xoolaat traité yi yi nga xam ne Sénégal signé nañ ko. Mm-hmm. nga liiraat ko bu baax. nga nga liiraat convention yi nga xam ne ratifié nañ ko. waxalaat ko bu baax. sa à dire dëkk bu signé traité président. Euh, ratifié ay convention souveraineté am dafa am loo xam ne da ko siy bàyyi. c'est ça. dafa am loo xam ne da ko siy bàyyi parce que dafa joxe kàddoom. dafa joxe kàddu. joxul kàddu kese. kaddu sax boo ko joxewul sax ñu ne waaw. Mhm. waaye nag da ngaa joxe lu raw kaddu. Mhm. raw kaddu yu nga xam ne daf ko daf ko laytaay. daf ko laytaay ak loi ak loi ak texte ko. Mhm. def naa ne loolu nag euh, loolu moom parce que gis nga cour européenne sa bu génnee décision. dëkk bu mu concerné da nga maam. Euh, coow lu bari sax du si am parce que application d'habitude moo si topp. kon ba lu ñuy jàpp te di ko fàttali mooy une loi supranationale moo sut li nga xam ne moo di loi nationale. parce que tamit. dëgg la naam souveraineté dëkk yëpp ko am làmboo ko waaye nag ndaxam da nga lii dañ ko bokk la nga bokk ak ñeneen di sa ay nawle def naa ni tam euh, lañ cay xaar ak mooy la ngeen bokk tey jii lañ fa décider ak da koy daal di appliquer je donne toujours l' exemple. Mm-hmm. que ni Sénégal bi mu buggee génne Yaya Jammeh demul songi ko. Mm-hmm. dafa dem wuti mandat CEDEAO parce que foofu yoon la appliqué yoon la jaar bañ ko joxee mandat CEDEAO moom kese demul. dafa ànd ak ñeneen ñoo xam ne dañoo bokk ci l'armée wu CEDEAO dem def li nga xam ne moom la ñu war a def en application véritablement des lois et des et des textes. de ce point de vue là dañuy jàpp ne rek ndaxam Karim am na ndaxam Khalifa Sall am na jamais 203 waaye mmh. nag nañ ko yemal ci deux yooyu jëm ci li nga xam ne moo di l'application véritablement des textes. Mmh. bu ñëwee nag ci Cour suprême euh, boobu ba léegi recours mi ngi am Mohamed. Mmh. recours yi ngay am yëpp def naa ni bii moo gën a créer engouement populaire. oui bii lañ koy bii la ñuy gën a waxtaanee. bii la gaa ñi gën a bàyyi xel lan moo ko waral. Mm-hmm. li ko waral du lenn lu dul. Mm-hmm. décision bi nga xam ne juge Sabassy fay génne na ko te décision bi boo ko liiree jëlal temps nga liir ko même su fekkee ni yow doo praticien droit comme sama genre gi. Mm-hmm. nga dégg praticien du droit interpréter décision bi nga xam ne Sabassy Faye Sabassy Faye génne na ko danga naan il a respecté toutes les normes euh, euh, euh architecturales du droit. xaw ma nag dégg nga ma. dégg naa les normes architecturales du droit maanaam géométrie baak arithmétique beeg résolution équation da koo da koo tënk si li nga xam ne mooy décision boo xam ne véritablement c'est fondé sur du droit. autant dans son contenu autant dans son dans son contenant que dans ses orientations pertinentes. Mhm. ba tax na barki démb laa doon déglu euh, euh, maître Dior Fall bi nga xam ne mooy la première procureure femme bi bi fii si Sénégal def naa ni même chose bi la wax si li nga xam moo di décision bi si fay génne ma déggaat beneen juriste euh, du docteur du docteur docteur nu ñu koy waxatee docteur Mbaye mu ngi koy wax que ni boo xoolee décision bi dafa mel ni sax dafa am fu ñu ko verrouillé si li nga xam ni mooy interprétation objective du droit loolu bu ñu ko génnee si diggante bi ñuy def recours devant la cour suprême Sénat bi ji di du du euh, jiite def li nga xam ne mooy user de son pouvoir d'injonction en application encore une fois de la loi. Hmm. donc gis nga ñaar décision yoo xam ne dafa favorable kii nga xam ne mooy Ousmane Sonko. Hmm. donc dañuy jàpp ni bu ñu yeggee cour suprême te encore une fois cour suprême Mohamed. Hmm. du cour d'appel. te cour suprême du juge dans le fond. bañ na ko sax dañu naan va la Cour suprême va juger les faits mais jugement des faits boobu boo tënkoo si li nga xam ne mooy la ñu génne fële si tribunalu Ziguinchor ak usage du pouvoir d'injonction de la Sénat effectivement danga naan fii moom bu ñu toppee yoon rek ce serait surprenant que suba nga dégg leneen lu jëm si li nga xam ne moo soxal euh, duggum Ousmane Sonko si si si course bi. et on n'oublie pas une chose xam nga tey nii loolu. buñ ko defee dañu naan ok respecté nañu li nga xam ne mooy yoon fa mu fa mu tàbbee fa mu tàmbalee donc fa muy tàbbee nag cëru conseil constitutionnel la boobaa te conseil constitutionnel bi mooy le seul gendarme de l'éligibilité kon boo képp ku jàll parrainage gis nga ñu bari boucler ñu seen parrainage xam naa daañu si ñëw. Hmm. ñu bari nee nañu boucler ñu seen parrainage am na ñoo xam ne ñu ngi am parrainage yu am solo si ay dëkk dëkkaan si ay douane si Dakar comme si Sénégal hmm. bu ñu yeggee déposer ko conseil constitutionnel mais validation de la candidature par rapport à son officialisation. Hmm. pour ñu ne yow léegi tu es candidat à à a à titre officiel conseil constitutionnel moo koy moo koy décidé mais ba fii ñu toll nii jàpp nañu ne lu bari si ak ak yelleefu kii nga xam ne mooy Ousmane Sonko ab pan maanaam ab pàcc si administration da ko salfaañe da ko salfaañe parce que juge bi si ordonnance am lu mu wax dafa leer exige et ordonne exige et ordonne nag yoon moo ko wax te yoon bu xasee ba wax nag amul leneen loo xam ne war nañ ko si teg su dee am na voie de recours comme nii ni ñu dugalee recours dem fii nga xamoo moo di cour suprême defe naan ba tey ñu ngi topp yoon léegi nag moo taxit euh, li génn soxal nit ñi par rapport ak naka la cour suprême war a interpréter wàllu wow da dañ koy bàyyi mu def liggéeyam ñoom ñu def seen liggéey mais ñu bari boo leen laajee lu ñu lay wax rek moo di lii moom nu mu leeree moos defe naa ne amul leneen loo xam ne dañ ko si dañ ko siy toftal. Mhm. pour andi leneen loo xam ne dafay safaanoo daanaka ak le juge juge ba wax si Ziguinchor. ak li Sénat mujjee wax si président su Doudou Ndir ak bureau ba. Mhm. jëm si li nga xam mooy direction générale des élections relativement à la réinscription d'Ousmane Sonko si liste yi. Mhm. à travers la direction de l'automatisation du mais également à travers le retrait des fiche de ces fiches de parrainage à travers la direction générale des élections hmm. te xam nga fiche bi moom xam lu ñu si bind hmm. mais la fiche na vous donne pas le statut de candidat hmm. kon boo yor fiche taxut ñu ne yow candidat nga dëgg la te deux cent soixante yu fi nekkoon deux cent soixante et une fi nekkoon moins bu Mamadou Ibra Kane amul daanaka laajteel ñu si bari laaju ñu leen ndaxam yee ngi si fichier bi laaju ne leen ndax am inscrire ngeen déclaré nañu bu ñu ñëwee dañoo dañ leen jox fiche seen mandataire itam bu ñëwee dañu leen jox daal jox fiche donc waruñu def nag li nga xam moo di seppi maanaam seppi bi mooy xaar kii nii ne kii moom faw moom ñu xool li nga xam ne moo soxal euh, euh, nekkam si si si liste électorale mais comme juge nag wax na la leen foofu nag la ñu waroon appliquer gis nga bu juge bu waxee mm-hmm. Sénat wax laata sax Sénat di wax ba juge bi waxee dañoo doon appliquer li nga xamoo di loi. Mhm. léegi nag si diggante bi nga def recours. recours woowee nag après si lay ëpp solo si li nga xam ne lan moo di xew. Mhm. waaye nag euh, bu ñu waxee que ni euh, direction générale des élections kaka jiite jamono ji nag. Euh, ñu ngi koy tudd nañ ko te alaakulli al foofu ñu tudd ko parce moom benn patron am. Mhm. en fin de compte même bu akkee tutelle. xam nga le seul patron de la direction générale des élections c'est qui mm -hmm. ou j'allais dire le seul patron du directeur général des élections c'est qui le code électoral le seul patron du directeur général des élections c'est le code électoral mm-hmm. amul leneen c'est le code électoral te defe naa nag loolu bu ñu ko doxalee woon mm-hmm. en application véritablement des textes très clairs yu nekk ci code électoral bi mm-hmm. defe naa ni am na lu bari loo xam ne du doon werante ay boromi xam-xam ay nit yu ñu ràññee du ñu xëy chaque fois di bind ay contribution di ko jagleel li nga xam mooy la ñu seetlu ni démocratie Sénégal dafa mel ni lu dertu ginnaaw wa ilaa dañu nekk di remettre en cause li nga xam ne mooy état de droit bi. te te gis nga ko démb 84 personnalité. Mm-hmm. gis nga tur ya fa ne. c'est ça la ko jiitu ñaata personnalité la ko jiitu yeneen ñaata personnalité. Mm-hmm. te booy xool secteur boo làmb rek. sur la euh, gouvernance boo koy xool tey jii nii ñoom Ndiaga Sylla Aminata Touré Bougane Gueye euh, Gëm sa bopp euh, docteur Abdourahmane Diouf et consort dugal nañu recours pour attaquer li nga xam moo di décret. décret bi soxal nomination. bu mmh. euh, mmh. Sénat membre Sénat commission électorale nationale et tout gis nga que ne fu mu toll nii dafa bari ay tiraillement si li nga xam ni mooy véritablement respect des normes en termes de transparence liées au processus électoral de bout en bout.